asalaamaaleykum mbokku Dakar instant ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di amat mbégte ak contentement di diakarlo ak yéen xawatina yeen ñi nga xamante ne yéen safoo télévision en ligne bi di Dakar instant ku gis décor bi nak xamné ñu ngi fi ci Liberté 6 ci gàmm gi nga xamante ne la bay Mamour Insa Diop organisé fini tay ci le 31 décembre 2018 muy marqué fin d'année bi ñu fas ko andé ak mbokk yi téléspectateurs yi nga xamante ne ñuy suivre à travers seen télévision en ligne bi di Dakar instant du ñak tuuti rek dañuy daal di tàmbali ak yéen ginnaaw présentation bi dugg ci li nga xamante ne moo di programme bi nga xamante ne moom la Baye Mamour Insa Diop ak ay taalibeem tëral ngir màggal guddi gu tedd gi. xam muy ci suuf si yooyu ñoom dañoo gumba te dañoo réer de ba tey itam xam lii Baye wax ci xotte. benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ba mu amee ñeenti at bi ñu xotti nañ ko ba mu amee ñaar fukki at ak juróom ko bi wax yi di waaj a wàcc ci moom xotti nañ ko keroog dañ koy rañaanee ba tax waaye dafa wax rek ne ñaari nga xam ne moom li ëpp ci ñooy siira moom lañ wax ne shaqahu ma shaqahu baada hada suma aydan baada hada shaqahu bi intixaalin ci ki kuutee loolu moom bàyyi saxal na ko de moom bu sey bi itam ñu demee seen jaamante ne xotteeg dënn yonent bi dafa wax mu ne suqa xotteef maanaam xal bi ci xolam boo xurijate génneef minu ci xol boobu mu doxatun ab suuf léegi saw daaw nga aji ñuul inda xasli bakra xasam mu nga xatamatu kastane ko yu ne la muy ni ngay doori jiibee وقد أودعت من بين كيف نقول ما لم تجعل وقت من السيوط لو نيرك أن باب أي شرم ونصرى من يوم يومنا إصراره أي موتم الختام أقصى ونفض دير بوت ولن دي أجوات دي تيمون وللإفضاء وتشعر تيمون دي ونأت ألف منا نسكي دعوني على والعبادة أكثر تدعوني على والخلوه البيت طفلا من مميق عليه وهكذا نتن من جبار مباحيه مريما تبيب ميق عليه بوغلا من جامع الله بوغلا من بيت جامع الله مريم داو ونار باحنا يورو لي جلد مريم متكشنا اذا حل النبوتشنا الهدايه الحمد قلبا افقل نشط الدم بسيجريت mooy kontan fi ibaadati ci jaamu yàlla al a'daaw cër yi de mun a xool bu fekkee ne njub wàcc na ci xol boobu dafay tax cër yi ñoom dañuy kontaan ci jaamu yàlla de sallallahu alayhi wa mu ne bàyyi mu ne xotteeku geer yi da koy fàttali loolu de waaw ba tey dañuy daal di continuer ci guddi gi nga xamante ne moo di guddi Baye ma Insa Diop bi mu organisé fii ci Liberté 6 euh, maa ngi taxaw ak ki nga xamante ne moo di Cheikh Moustapha Guèye moom day mel ni moom moo jiite li nga xamante ne moo di daayira bi ma bëggoon ko bàyyi mu njëkk nuyoo ak mbokki Dakar Instant ba pare Cheikh bi ñu ngi lay fay Dakar Instant di leen remercier ci seen teewaay fii waaw muy mel ni cheikh bi ñu ngi fii ci guddi nga xamante ne moom la Baye Mamour Essa Diop organisé mu mel ni mbooloo mi takku na gis nañ tamit une très forte organisation ñu bëggoon nga ñëwaat tuuti rek ci organisation bi. waaw asalaamualeykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahaabi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa Euh, di nuyu waa Sénégal yëpp ak euh, képp koo xamante ne euh, auditeur nga auditrice wala ngay suivre Dakar Instant di rafetlu seen teewaay gàmmu gi nag am na ampleur boo xamante ne dëgg-dëgg yéen a ko gisal seen bopp gis ngeen ne daal daanaka foo sànni mat mu tàkk comme niñ koy waxee donc ampleur organisation bi suñ la waxee ne 8000 chaises teg teg nañ ko ñëpp toog. rek war nga gis dayoo gàmm gi waaye 8000 chaises yoo xamante ne it nit ñi tok nañ ci te gis nga ci alentour gàmm gi ak la ko wër yëpp nit ñaa ngi taxaw ndax ñàkk fu ñu toog nak nag euh, dafa am liggéey bu ko jiitu muy liggéey boo xamante dañ ko def ci kaw ngëm yàlla ragal yàlla ak yitte bu kawe te ki ko def di suñu sëriñ di suñu sang di Baye Cheikh Maour Insa Diop ñëpp xam ko ci le marabout de la nouvelle génération ndax lolu du ñun ñoko ko ko wayé Serigne Moustapha Cissé bu Pire yalla nako yalla yërem moko moo lolu wayé kilifa yu bari tuddee nañ ko ay tour wayé mën nañ tënk ne rek tour yoyu nonu yépp ñu ko tuddee euh, bobu mom mo ci gëna mengo ak doxalinam ndax bay day naan bari tour day tegtelu mbaaxu ku ñuy tuddu ak dayop ki ñuy tuddu té Cheikh Mamoun nu ne tuddee nañ ko ko waaw kon nag euh, liggéey boobu noonu dëgg-dëgg moom la ñuy feete at bu jot mu tombeek 31 décembre comme ni ngeen ko xamee muy une nuit noire ça fait partie des nuits sombres euh, Cheikh Mamour gis ne dëgg-dëgg jeunes yi waruñu leen bàyyi noonu ñuy dem di wuyu seytaane comme yàllaa ngi woote seytaane di woote mu dal di jël bisu gàmmoom bi nga xamante ne moom lay defal at bu jot daayira bi mu kale ko ci 31 décembre loolu mooy xikma jàpp bi ñu ko jàpp le 31 décembre ndax tey gis nga ne jeunes yi fi teew ñëpp ak mbooloo ñu fi teew ñëpp ak jigéen ñi ñëpp kenn talul dem fo kon loolu résultat la waaye waaye xëy na soo leen bàyyi woon du ñàkk ñenn ci ñoom seytaane këf leen ñu dem wuyu ji ko kon loolu moom mooy solo gudd gi. Euh, ñu ci wan euh, wax euh, thème bu am solo mooy udu ila sabili rabbika bil Hikmati. mu ne appelle les gens avec sagesse vers ton Seigneur ay Bobu, Bobu, lañ ñu tànnal pour ñu waxtaanee ci moom nga dégg Serigne Mouhamadul Mahi Ibrahim, Niass nga xam ne tey moom moo topp ci khalifa Cheikh Tidiane Ibrahim Niass di Khalifa faydatu Tijaniya Euh, moom moo ñëw tey jëmmal ko jëmmal njabootu baay bi yëpp donte ay doomu baay yu góor ñëw nañ bunge si ko ak ay délégation doomu baay yu jigéen ñëw nañ bunge si ko ñu ñëw waxtaan ci thème boobu te at bu jot day am thème bu ko defee rek euh, loolu la nekk di wax ci naka lañ war a wootee ci yàlla mooy woote ci xam-xam woote ci njub te woote boobu dëgg-dëgg soo xoolee Cheikh Mamour Euh, réussir bi mu ko réussir moo waral nit ñi ré wéy si ko ndax dafa ne uddu u ila sabili rabbika bil xikmati wooteel ci sa borom ànd ak sages waaye tey jii su fekkonte ne xëy na woote bi àndul woon ak sages kon xëy na ñun ñëpp duñ ko wuy si kon loolu résultat wu liggéeyam la donc euh, loolu moom moo ñu fi dajale daayira bi nag muy daayira boo xamante ne dëgg ay ndaw ñoo ko sékk daanaka mu ngi ci gox bu ne ci Sénégal ndax gox bu ne am na lu ñuy wax euh, euh, section mooy taalibe yi nga xamante ne ñoo dajaloo foofu comme nga ne parcelle ne Baobab ne HLM Grand ne Pikine ne Thiaroye-sur-Mer Rochette euh, Rufisque fépp foo dem rek am na section suñ leen limee mën na toll ci vingt-quatre mooy ñaar fukk ak ñeent section waaye yamuñu ci loolu comme daayira bi dafa bëri ay talent ak ñoom seen xam-xam dafay màcc ci ay domaine yu wuute moo tax ñu organiser lu ñuy wax ay commission yoo xamante ku ci nekk si sa xam-xam ci li mu màcc di nga mën a apporter l'islam sa contribution di nga mën a apporter l'islam euh, tarixa tijaaniya sa contribution waaye nag rawatina faydu Cheikh ibrahim Niass sa contribution loolu moo waral tey nga gis comme exposition bi nga gis am benn commission moko jëmmal ligéyu jéxitalu ligéyu benn commission la moy commission 3C moy communication et culture commission communication et culture moy 3C ñom ñokoy euh, amal at bu jot pour woné fessel ligéyu euh Mawlana Cheikhoul Islam El Hadj Ibrahim Niass ci génération yi bees yi nga ñëw nañ té te fekkewuñu won jamonoy bay ñu gis ligéyu bay Niass ñu won leen ko waaye tamit. fësal liggéey suñu sëriñ ba Cheikh Maour Insa Diop àdduna bi tamit xam nan la taxawee ndax liggéeyam tey tasaaroo na ba yéen ñëpp gisanoo ngeen ko mu ngi ba États-Unis mu ngi ba euh, Europe mu ngi France mu ngi Espagne soo demee Lazareth da nga fay fekk taalibe yu bëri photo yaa ngi fi euh, soo demee Lyon gis ngeen ko amoon na leeral point net sax daan na ko reprendre ak yeneen site Euh, daan nu wane sax ay vidéo yoom taalibe Lions yi dañ daan ñëw di ko ziar te ñëpp tubaab yu weex taal lañ xam nga loolu karaama la ci nit ku dem fële dem yaatal liggéey ñëpp topp la tubaab yëpp topp la soo demee Italie tamit même chose soo demee donc euh, dëkk yëpp daal Belgique naka noonu euh, Maroc am na fa section tamit donc mun naa wax na rek Cheikh Mamour fu ne am na fa taalibe fu ne am na fa mbooloo boo xamante ne lenn takkeewu leen lu mooy laa ilaaha illallaah muhammadu waaye tamit ñu wuy nañ woote Cheikh Ibrahima Niass mooy xam yàlla donc ñun ñëpp jël nañ wérd àgg ci seen borom ci ba pare terewul ñu ngi liggéey seen liggéey respecté seen ay waajur nekk ay citoyen nekk ay doomu aadama yu nite yu taxaw pour tabax société nekk ay ndaw yoo xamante ne ñu gisee sax seen yeneen moroomu ndaw yu war a jàdd yoon Nous war am ñom taxaway pour war leen indi ci yoon kon lolu moy liggéeyu Cheikh que? nous waral nak kilifa général Pire mu ngi donc euh, association donc euh, islamique pour le soufisme ak yoyu ñom ñëpp mam Cheikh Mbacke ñëpp ak euh, famille religieuse yëpp ñom nañ fi famille ñëpp nañ ko di ngay gis yi ay daanaka ñëpp dañuy ñëw di teew. pour pour ñu bañ la dog day mel ni comme ni ñu ko déggee nii li nga xamante ne moom nga jot expliquer mu bokk ci li nga xamante ne moom la œuvre u Cheikh Mamour Essa Diop def muy li nga xamante ne mbooloo mi bu ñu saytee mën nañ ne 50 pour cent wala lu ko ëpp ay jeunes lañu macha allah ñun ñoo gisal suñu bopp ñu ay jëm yu correct di ay jëmm yu yiw macha allah ba pare sell ngay gis ci ñoom ak leer macha allah muy mel ni kon def na résultat ci ñi nga xamante ne ñoo di ay taalibeem ba pare pare nekkat jeune tax ñi nga xamante ne moo di Dakar instant encore une fois ñu ñëwaat ngir ci euh, événement bi nga xamante ne moom la oote te comme ni nga reveniraate aatee ci date bi day lu am solo ndax le 31 décembre comme ni nga ko waxee ci Sénégal bëri na ci ñi nga xamante ne ay bésu puukare la ñu ko jàppee ndax jamono yi ñuy wax ak am na ci ñoo xamante ne ñii ngi ci boîte yi ñii ngi def naka su dul noonu waaye moom itam mën nañ ne dafay participer ci éducation yi ndax jamono ji ak ni guddi gi demee mu woo ñi nga xamante ne ay jeunes lañ di leen xiirtal ci suñu borom loolu jàpp naa ne comme ni nga ko waxee karaama la tamit euh, interna euh, inter ni mu ni mu ni mu nekkee nit ku international itam loolu defe naa ni du di naatable ndax Cheikh Mamour Essa tollu na foo xam ne ci dayoo boo xamante ne fi ne foo ko tudd ak fépp foo mënti dem rek daañu ko mën a xàmmee te li nga xamante ne rawatina waa kër Maolana Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Moustapha muy mel ni waxtaan wi leer na waaye itam dégg nañ ci lu am solo loo xamante ne muy exposé bi ñu bëggoon ànd rek ak yow ci image nga daal di exposé ak dëgg-dëgg intellectu euh, intellectuel yi nga xamante ne ñoom lañu fi fekk euh, ni ñu toppee sëriñ bi ndax d'habitude euh, ak taalibe dafa yombul ci ki nga xamante ne dafa jàng dabitude boo jàngee ay nasaraan dangay ngay gën a jege ak caay-caay ci ñi ma ko mën a wax maa ngi tuub ci baat bi waaye day mel ni fii fekk nañ fi ay ndaw yu farlu yoo xamante ne ñu ngi jàng te teewul ñu ngi xiir seen bopp ci yàlla suñu borom. waaw exposé bi benn benn pàcc la ci liggéey bi xam naa ndax moom ngeen gis waaye soo leen ñëwoon ci suba di ngeen gis ne am na commission bu ñuy wax commission santé jiitu na def na fi don de sang daanaka presque une centaine de personnes yoo xam leen di may deret at bu jot. te ñëpp ci biir euh, waa kër baay Mamour Insa la ñu bokk. Cheikh Mamour la ñuy doon ñoom ñooy ñëw daanaka am na at boo xamante ne sax muy daaw jëkk. centre de transmission sanguine dafa indi ay poche ñu joxé ba amatu ñu poche ñom donneurs yi ñëw ba ñoon amatu ñu poche ñu ne ah ñun de ñu ni def pour won la rek euh, liggéey bi nga am ñu koy def def nañ fi test de dépistage gratuit diabète lolou tamit ci jeexitalu liggéey bi tante bi dal danaka comme bala ñuy ñëw ci exposé bi dinaa la wax né bëri ay commission commission hébergement parce que gan yi ngay gis nii du ay gan yu dajeek ñun ci guddi gi déedéet day gan yoom dañuy ñëw daanaka ay fan waajal gàmmu gi ñiy jóge ba Mauritanie ku mel ni Cheikh euh, Abdallah Wuld Seyd nga xamante ne kilifa gu mag la ci xalifa Cheikh Tidiane surtout Mouhamadou Hafiz ci ñooñu la bokk moom mu ngi fii toog ak délégation bu am doole bu jóge Mauritanie ñoom ñëpp nag ñu ngi leen dalal ci euh, ay euh, hôtel yoo xamante ne loolu lépp ci yitte Cheikh Mamour ngir ganam nekk à l'aise moo tax da leen di jël en charge ñoom ñëpp donc ñoom ñëpp ñëw nañ donc gan yi ña leen di saytu di leen toppatoo mooy commission hébergement gis ngeen sécurité bi am tey ak ordre nu mu amee policier yaa ngi nii waaye ak sécurité ndax dafa am commission sécurité am commission restauration ndax gan yi dañ leen jox ñuy lekk donc euh, fi ñu war a jëm ni benn commission la ci commission yi waaye xam naa beneen yoon incha allah soo leen ñëwee di ngeen gis yeneen commission yi liggéey. dañuy gën a yaatal sax. waaw ñoo ngi koy def mën nañ dem ma woon leen. ba tey on continue ak ñi nga xamante ne moo di Dakar euh, Dakar instant ndax ginnaaw bi ñu déggante ak ki nga xamante ne moo di Cheikh Moustapha Gueye moom mi nga xamante ne moom moo yor daayira bi dañuy ñëw nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor chargé de communication bi mooy session bi nga xam ne moo yor communication et culture su ma juumul dañuy nekk ki nga xamante ne d'abord mooy jëwriñ ji ma bàyyi ko mu présenté wu ak

mu mel ni liggéey bu am solo ngeen di def parce que euh, li nga xamante ne moo di wàllum communication dafa nekk loo xamante ne dafa am solo mais comme ni ñu ko waxee euh, lii compte euh, produit fini boo xamante ne la yéen ñi nga xamante ne yéen a faxe ci wàllum communication bi yéen a ko def ba tax na du ñu ci explication détaillée bu gàtte saf rek nga expliquer ñu vidéo yi nga xamante ne moom mooy affiché nii à l'écran waaw léegi naa leen ko expliquer ci de manière ramassée rek parce que vidéo yi dafa xawa a mais mais y a un contenu vraiment bu intéressant fi yene ngi gis euh, ba julli korité baay bi baay defone euh mom lañu wane fi en vidéo donc euh, bu ngeen euh image la yo xamné ne image yu raar la images image yu raar la yoo xam vraiment ça parle d'elle-même donc euh, ça fait vraiment plaisir de voir ça après ça il y a d'autres vidéos aussi une fille. Euh, fille euh, bon c'est nommé baila la El la solution bon qui n'a la de solution qui loolu la Dieu dieu me présente filles ñu ngi ñu ngi def quelques paroles de Maulana Cheikh les pôles sont incapables de rejoindre ma monture donc ngi suis un fi mu ci ci ci Waouh, ma lay un donc bi dal bari ay ay ay phrase yo j'ai buñ fi qui diko temps bi jot bi duñu mais c'est très intéressant macha allah ñu jàll ci beneen vidéo euh, Bi, mu ngi tudd Cheikh Ibrahima Niass dans toutes les dimensions mais bi jàppoo photo kese la ay photo rek la mais dans toutes ces dimensions parce que bay fu mu dem rek da dan dem di photo da dan photo ngir nit ñi bu ñu demee ba ci jëmmi jamono ñuy ko mom di xol fi mu jaar ba taxawal li mu taxawal daal moo tax photo yi c'est intéressant vraiment dimension bu Baye la lay woon dimension internationale dimension panafricaniste dimension euh, bu dal daal parce que dañuy wax né d'habitude Baye ñi nga xamante ne ñoo nekk à l'international sax

donc euh, Mauritanie Ghana Burkina Nigeria Cameroun hein, euh, Espagne donc euh, même niveau international américain et tout donc ñooñu ñëpp day wane ont Maolana Cheikh Ibrahim Niass dayoo bi mu am daal ci Sénégal ci àdduna bi yëpp tamit macha allah léegi waaw mën nañ ci vidéo ok Si une euh, phrase bi nga xamante ci gàmmu Medina bay bi passé gis ngeen euh, ni ko gars di defee ay statue di ko di ko répété à chaque fois moy Xaniyaan ibrahim bi donc mom lañu ñu def fii y a quelques paroles de bay avec euh, yi muy tagg yonent bi salaahu salaam ak ak ay diapositives yo xamné day woné image am mom tamit donc kep ku fi ñew bo xolé yi rek di nga am li ah, nga for lo xamné ne dana la jëriñ dal ci bay inshallah donc loolu moo nekkee vidéo yi. waaye euh, maanaam ci gàttal bokk na si lu ñu mën a retenir mooy que ni ni nga xamante ne noonu ngeen tuddee exposé bi suma ma jumut muy la vie et l'œuvre de Cheikh Ibrahima Niass dëppoo na ak li nga xamante ne moom la vidéo yi di génne waaye tamit dëppoo na ak li nga xamante ne moom la exposition bi total wane ndax euh, ñu ngi gis li nga xamante ne mooy ay œuvre am waaye ñu ngi gis li nga xamante ne tamit mooy jaar-jaaram waaye parcours bi nga xamante ne def na ko ci kaw suuf tamit ñu ngi koy gis bu baax mais ñu buggoon ñëwaat tuuti par rapport ni ngeen nekkee ay ndaw nek ay intellectuel fréquenté l'école di ànd ak Cheikh Mamour Insa Diop ban njeexital la def ci yéen waaw euh, loolu moom macha allah dañ ciy sant yàlla bu baax ndax euh, Cheikh Mamour Insa Diop vraiment guide spirituel la boo ne ndaw ñi ñëpp ñu ngi daw jëm ci moom donc euh, loolu te du moom moo woo kenn ne ko ñëwal mais yàlla ko rek ndaw ñi di ñëw ci donc ñun ñu ngi sant yàlla bi ñu wuyu see woote boobu donc euh, grâce à lui ci la ñu def lii ngay gis nii yëpp bi ñuy depuis bi ñuy nekk étudiant à l'université daanaka ñi koy ñi koy def lépp léegi nekkatuñu ay étudiant ñu ngi liggéey donc depuis boobu la ñu tàmbali lii nii donc biñ koy njëkk a tàmbali sax c'était avec euh, avec des papiers A4 daanaka ci la ñu commencé ne lii foog ñu jéem a créer comme ñun en tant qu'étudiant donc euh, foog ñu jéem a teg dara ci ci ci li nga xamanteni ni loolu la ñu Cheikh Mamour Insa jangal donc ci lañu jéem créer commission culturelle gannaaw gi buñ joggé ci commission culturelle biñu fusionné ko communication bi bi nga xamné mo ngi ci xadra bi mu nekk 3C donc euh, mu nekk commission culture ak euh, communication communication culture donc comité communication et de culture mu 3C donc ci di taxawal lu chaque année muy ñuy innover donc euh, indi nañ fi ay kakemono ay gi ren ci indi ces bornes là nga écran tactile la donc y aura plus de contenu donc de ce fait euh, ku ci di nga plus de plus d'informations ci nga la lii daal lañu ñu Cheikh jàngal moom la ñuy jéem a jéem a wone daal donc comme ni nga ko waxee vie et œuvre de Maulana Cheikh Ibrahim Niass loolu mooy suñu kii suñu objectif mooy vulgariser vie et œuvre de Maulana Cheikh Ibrahim Niass donc euh, ñu ngi ciy jéem la ñu mën daal. jërëjëf euh, ki nga xamante moo di euh, Omar Daouda su ma juumul noonu la waaw macha allah muy mel ni explication détaillée bi gàtt na waaye tamit leer na ndax comme ni ñu koy waxee rek li duf ci nag bi yëpp xajul ci cin li waaye l'essentiel a été dit ndax li nga xamante ne moo concerné Maulana Ibrahima Niass euh, daanaka mun naa ne ñëw nga ci ci lu ëpp solo ba tax na dañ lay sant di la gërëm waaye tamit di la jaajëfal ci jot gi ak disponibilité bi nga ñu may euh, jëmee ci li nga xamante ne mooy ci guddi gi nga xam ne moom la euh, Cheikh Mamour Insa Diop organisé ñuy wax nag ce mot de la fin par rapport ak li nga xamante ne moom la waa Dakar Instant def si woon fii nii ci guddi gi. waaw euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm ci li ngeen xam ne yéen a ngi ñuy dimbali ci vulgariser euh, vie et œuvre de Maulana Cheikh Ibrahima Niass donc euh, yal na yàlla fayanteeg yéen yiw may leen yëkkatiku si dara jag si maqaama yàlla may leen ngeen dem ba romb seen jot si barke gàmmu gi ngeen ñëw si barke Baye Cheikh Mamoun Insa Diop asalaamaaleykum wa rahmatulah taala kon mbokk yi dañuy daal di wéyale li nga xamante ne moo di sunu reportage bi ñu def si woon fii ci guddigu tedd gi euh, di euh, guddig Baye Mamour Insa Diop gi yemoo ak le 31 décembre 2018 di marqué li nga xamante ne moo di fin d'année bi mën nañ ne euh, gis nañ li nga xamante ne noonu la demee du ñàkk image yi di ngeen ko gis noonu mu mel ni lépp loo xamante ne rek tax na ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass tey gis nañ ko fii ci exposition bi waaye day mel ni njabootu ki nga xamante ne moo di Maulana Cheikh Ibrahima Niass wuy nañ ki nga xamante ne mooy di Cheikh Mamour Insa Diop organisation bi macha allah ñu ngi gis ni nga xamante ne noonu lay demee ba tax na xam naa ne dañuy daal di jàll ci kanam dégtal leen li nga xamante ne moo di suite bi euh, ci kanam tuuti lay doon fii ci Dakar Instant.